Lesson 3 Greetings. Salam alaikum. Peace be upon you. Use at any time of the day. Malikum salam. And on you, too. Reply to the above greeting. Jammanga fanan. Good morning. jàmm nga yendu good afternoon jàmm nga yendu good evening mba yaa ngi ci jàmm are you in peace jàmm rekk peace only na nga def how are you maa ngi fi rekk I am fine. ka waa kër ga? How is the family? Ñu nga fa. They are fine. Naka liggéey bi? How is the work? Jàmm rek mdillaay. It is fine. Na nga def ak How are you with tiredness? Jàmm rek. I am fine. Naka Mari? How is Mary? Mari mu ngi ci jàmm. Mary is fine. Naka xale yi? How are your children? Ñu nga fa. They are fine. Bismillah. Welcome. Mba. Thank you.